salaamaaleykum <laughs> eh patriote sama xol sedd na ci yéen wala Hachim sama xol sedd na ci yéen stade bi ni ngeen ko def sonkorisé ko sonkorisé ko sonkorisé ba kenn mënul dégg rek ci réew mi ndax sonko na mën naa waay waay waaye yéen stade bi waa APR yi fa nekkoon moo jóg ñibbi waaye ñoom jóguñu ñibbi s'il vous plaît waa APR yi ñu ngi woon ci stade bi wallaay asim ku ci nekk waa APR bi nga den doon ñoppati ngeen den xool ba xam deewuñu s'il vous plaît tamit nag ah li ngeen def neex na dégg naa ca teel ba ngeen commencé ca tey ba ngeen commencé di ko sokorisé ba ci biir stade ba shukran a ma yau ku gyara wallahi a shi jama'a kwanciyar da